Name: Mariam Ndiaye asalaamaaleykum mbokk ka ci dal leen ak jàmm njiitu réew bi di Macky Sall ndax dina wàññi mandat am déet li am ba des daal moom mooy ne moom daal dinay xamle ne dina am ab référendum boo xam ne daal dinañu ko amal fii ci biir réew mi ci atum 2016 dañ ko fas yéene amal wante nag dañoo nemmeeku ne am nañu bokk ci biir APR ñoom nag fan yëpp de ñu ngi yëkkati seen kàddu di wax ne ànduñu ngir Macky Sall wàññi li nga xam ne nag moom mooy mandat mu amit ñeneen ñoo xam ne ñoom daal dinañuy wax daal ne fu mu nekk nii nañu bàyyi njiitu réew bi di Macky Sall mu digoon askanu réewum Sénégal mu daal di koy wëyal ci biir cuurekaay di di Sud Quotidien suñu naataango yi tey jii daal di jokkoo ak ki nga xam ne nag moom mooy Diallo Diop nekk secrétaire général bu RND moom la mu xamle moom mooy daal ne Macky Sall moom moo ko digoon nag askanu réewum Sénégal kon nag fu mu nekk nii kenn du nangu nag mu fiy def ci lu tolloog juróom-ñaari at su fekkente ne nag ñi ni mel de xalaat nakaa def kon boog bu ko yeboo mu xam ne daal moom wax waxeet la fi fas yéene def Mouhamadou Mbodj mi jiite forum civil moom nag la mu moom mooy daal di jib ci APR té nak mu nek ay cadeau yu woro dafa melni dal né ba légui nak ci biir APR googu daal ñoom jubóowuñu nak ci cadeau manam dal bu ñi ne bëgg nañu ñu dal di wëyel nak mandaw Macky Sall ba mu tollu ci juroom ñaari at ñeneen ñi gëm ne nak juroomi at doy na ci dafa melni dal li jax bu nak mom mo am ci biir parti bobu wante mam les Camara nek ap journaliste nek tamit kat mom ma ngay jangat mbir yi tay ji nak ci biir bi di di jang mom la suñu natangoy yi dal di dalal le mu xamle mom moy dal ne ci wàllu mandat démocratique nag amul luñ ci war a mën a nekk di ñi daatu maanaam daal ki nga xam ne nag moom mooy Macky Sall su fekkente ne daal daal di ne xas ba wax ne moom juróomi at la bëgg a ci bopp réew mi kon na fexe nag ba li ni mel mu daal di koy dëggal su fekkente ne nag Macky Sall tey jii bëgg naa def lu ñuy wax wax waxeet kii di Mame Less Camara mu ca gis mooy ne bu boobaa moom ay chance dootul bëri ngir mu am fi ñaareelu mandat plan Sénégal émergent démb ko doon natt fële bi Le Soleil di ñu xamal né ben at ginnaw bañu ko fi taxawalee lañ ca gis mom dal dinaay dal xel yëglekaay bi di Le Populaire né demb ki nga xamné nak mom moy Macky Sall même su fekkente ne sax gis na ne nag plan Sénégal émergent ñom dal bëri na nag ay projet yo xamné nak nag fi mu nekk nii tàmbali nañu ko wanté mom la mu ca gis mom moy né faw ñu gëna accélérer nak mbir yi fexé nak ba mu gëna a gaaw fexe ba lépp lo xamné nak askanu réew Sénégal ñu ngi koy séentu ci walu plan Sénégal émergent bobu ñu war ka mëna gisé ci ni mu gëna gaaw

njiitu bi di Macky Sall li ni mel de lo bëgg nak ñu daal di amal fi ci biir réew mi te nag ngir mu daal di war a nekk faw nak ñu am koppar gu tollu ci 2425 milliards de francs CFA ci kay bi di réew mi quotidien moom ma ngay ñëwaat ci walu plan Sénégal émergent ben at ginnaw nak bañu ko fi taxawalé su fekkente ne sax démb daal dina ñuy xamle nag ne lañ ca gisee ni fu mu nekk nii nag baax la ne loolu nag warul mën a tax nag mu ñu ne yàcc ñeesaar maanaam daal ñu ñuy gën di wéyal liggéey gi ay kàddu Macky Sall tamit cukalikaay bi di direct info euh, moom la daal di euh, fësal démb nag foofu nga xam ne de moom mooy ca centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio kii nga xam ne nag moom mooy du Ba daal di ne tontu ñi nga xam ne dañuy ne dëkk bi moom koppar gi du fi faral di dox moom mooma di Amadou Ba ma ngay weddi li ni mel di xamle ne ci atum 2013 am na koppar gu toll woon ci 620 milliards goo xam ne daal ñu ngi ko doon jaarale fii ci biir réew mi ci dafa gën a yokku ndaxte na bay tollu ci 685 milliards parti bi di réew mi te Idrissa Seck jiite ko ñu foogoon nak ne parti bobu sax fu mu nekk ni mom dañoo na sax dafa nak ni nag li ni mel ñom ñong koy tambalé di weddi ndaxte kay bi di grand place ni ñi xamal ne ki di Déthié Fall nekk numéro 2 bu parti bi di réew mi ginnaw ba mu waxtaanee ak ñenn ñoo xam nak dañoo bokk ci biir APR te nekk ci Golf Sud ñooñu de dañoo mujjé jóge nak ci parti bobu dal di dem ci parti bi di réew mi kay bi di grand en place di ñu xamal ne ñooñu nga xam ne la ñoom ñoo jógee ca parti bi di APR la ñuy ŋàññ moom mooy daal ne nañuy doxalee ci seen biir parti boobu cuulikaay bi di l'observateur ma nga ñuy ne nag moom moo dal ñetti doomu réewum xam ne nag ca Maroc ñu ngi ñuy xamal ne ñaari mag ak rakk yi di Adja ak Sophie Gueye ak tamit seen cousine bi bu Ndoy ñoom ñetti ñëpp ñoom ñoo bokkoon fu ñu dëkk dañoo daal nag gaz butane loolu nag moom moo leen yóbbu mbir ya nag ma nga xewee ci guddi ba juróom benni fan jàpp juróom-ñaari fan ci weeru avril autolikay bi di l'observateur di ñu xamal ne seen njaboot fu mu nekk nii moom ci jàqare bu rëy la ñu daal di wàllu tàggat yaram nañu koy jeexale rawatina nag wàllu lamb waa sport ma ngay ñëwaat ba léegi ci ndam lu rëy moom la Eumeu Sène am ci kaw Balla Gaye numéro 2 ndax nag koy bii di suñu làmb ñoom ko ak Thierno Gueye nekk mystique bu lion du Guédiawaye daal di xamle moom mooy daal ne xamoon na Balla Gaye numéro 2 dañu ko naroon na combat bi mu doon am